asalaamaaleykum wa rahmatullah sama gars yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar dalee nag jàmm ci seen chaîne bi di Darman mobile eh, fan yi ñu ngi woon ci formation Excel boo xam ni amoon nañ ci quatre vidéo yu jàll nag ñu ngi ñëw ci cinquième vidéo bi tey li ñu bëgg def mooy multiplication kii soo bëgg a def xam nga day ànd ak ay multiplication boobu noonu nag nga koy programmer ba mu nekk automatique nga xam ni Euh, lépp loo remplir ci facture bi rek mu calculer la ko automatiquement euh, ni nga ko bëggee selon yow ni nga ko programme quoi léegi boo sélectionné benn cellule da ngay xëcc ba mu sélectionné wu su sélectionné wu nga ñëw ci format bi boo cliqué mu génne la benn tableau nga ñëw ci suuf bi mu ci suuf boo ko bësee tableau bi la lay génneel nga ñëw xool bordure euh, ñu ngi ci bëgg a kii bi tableau benn tableau bu jekk lañ bëgg am fii li ñu sélectionné lañ bëgg def benn tableau nice voilà si si ko wër da ngay boo coché léegi nga bës ok bës ok gis nga xam nga am nañ fi tableau mais tableau bi nag su fekkee facturation la muy am euh, quantité euh, désignation prix unitaire yooyu noonu dina am yu ëppante xam nga parce que destination bi mooy gën a yaatu par exemple voilà nii laa ko bëgg a def quantité bi nekk dama koy def lu tuuti parce que moom tuuti dafay nekk un wala deux wala trois gën gaa bëri vingt trente cent voilà yooyu rek moo fay nekk destination bi gis nga xaaral ma programme ba mu pare euh, voilà moom doy ci man léegi. xaaral ma supprimé bi bi bi bokk ci parce que euh, printer prix total bi léegi ma dem ci supprimé voilà léegi supprimé naa ko bokkatu ci donte am nañu koy def continuer ci TVA bi mais man jëru ko quoi dix-huit mais léegi boo defee nii nag mën nañ programmer suñ tableau ginnaaw bi nga am tableau bi pare fii nga bind fii quantité mën nga tënk rek QE QU non désignation dama juum quantité nga fi def QE e, ak T noo ko mën a tënkee daal ba nga xam ne di ko xam désigné quantité voilà quantité bi nga def fi désignation on va définir désignation avec S, voilà, quantité avec S. nga ñëw fi def prix unitaire prix unitaire P point deux points sax mën na nekk P point unitaire noo ko abrégé rek moom tamit ba nga xam ko rek prix unitaire après nga ñëw ci dernier colonne bi nga def prix total léegi li ñu bëgg a programme mooy dañu bëgg a programme ba facture bi lépp loo ci def rek mu defal la calcul automatique bi dajaleel la ko ci prix total bi par exemple fi ma nekk nii bii nii C bi ak euh, B bi lay pluse ak euh, A bi ak kii bi lay pluse ak A bi ak B bi CB plus AB xaar ma génne kii bi sama clavier virtuel bi moo gën a gaaw ci li may def nii xaaral ma activé ko clavier virtuel voilà léegi activé naa sama clavier virtuel pour mu am ci multiplication majuscule am na benn petit euh, benn petit blocage bu ndaw de xaaral ma wër ko gisoo que li may def répandre ci euh, tableau bi bi nii normalement dafa répandre fële ci tableau bi nga xam ne looy def duñ ko gis te xaaral dinaa dinaa régler problème parce que ba léegi répondre sixième multiplication bi sax feeñagul quoi eh, feeñ na may dafa dafa xaw a gris léegi saa boo rek mënoo def nen ba mu répondre fële ci cellule bi ko bëggee te ko bëgg yóbbu ci cellule euh, bi voilà mi ngi soog a léegi euh, damay def euh, A plus B jël beneen bi dana bii mooy bi léegi A2 ci laa nekkoon plus euh, deux voilà nii da nga koy def bële multiplier par kii maanaam quantité bi multiplier par euh, prix unitaire quantité multiplier par prix unitaire ñaar yooyu rek yow moom moo la quantité ba programme par quantité multiplier par prix unitaire quantité multiplié par prix unitaire lu bi lu ñu tuddee léegi xam nga am naa fi trois quatre kii quatre trois colonnes la fi mais exemple la rek quatre colonnes baax na pour ba joxe benn exemple léegi mën na maa def euh, cinq cinq cartons cinq cartons batterie fii xaalis bi ñaata la ñaata lay jar trente sept mille léegi boo cliquer fa ne gis nga da koy da koy calculer automatiquement li ngi nekk euh, cent cinq mille wala cent quatre-vingts nangam kay cent quatre-vingt-cinq mille yaakaar naa parce que euh, dafa xaw a lëndëm ci man tuuti nag mais foog naa cent quatre-vingt-cinq mille war a doon naa xaw a jaxase waa jaxase xaar moo ñeeku ba xam cellule bi laa jaxase mais xaaral damaa jaxase cellule bi mais dinaa régler problème bi léegi incha allah fële nagul def parce que dafa gris hmm, léegi comme nii la demee naa sélectionné wala ma ci kawam effacé boobu cliqué waat bële effacé ko voilà léegi kon léegi baax ma c'est bon léegi boobu eh, noonu A3 bi ndax benn programme mën naa ko waaw léegi ma def dix léegi maa ngi ci remplir eh, def ci facture benn contenu euh, dix euh, carton noonu gis karto mun tayga mun tayga voilà léegi ñëw fii prix def euh, quatorze mille defe 14 bi rek boo cliquer fu dul ci fi nga bind rek da koy da koy da koy multiplier da koy automatiquement gis nga ma ñëw fii def wäre toll. wala six sacs café Touba six sacs de café rek six sacs de café Touba quatorze mille cinq cent voilà gis nga léegi nag euh, euh, fi ngay gis résultat yi dama jum waaye xam nga keroog euh, am na benn cours buñ ñu boo xam ne fii nii ci suuf euh, boo bu bala ngaa remplir kii yi ni nga ni nga programme tableau bi fi nga koy programme ci suuf nga xam ni da nga fiy def benn total wala benn somme moo xam ne si résultat yi ngay am fële yëpp moom itam day dajalewaat ci suuf nga xam ni facture bi foo tool di nga xam ñaata moo ñaata la comme fii nii bu neexee résultat yi nga def ko fii ci suuf nga xam ni facture bi foo toll rek da ngay xam ñaata la moo gën nga dem ba pare di ko solo def ba tey tamit bu la neexee nga programme tableau bi ba comme ni ma def nii ba remplir ko pare ba eh, ba benn bu ne eh, ay résultat am nekk gi su ko defee nag nga soor ko totaliser mais loolu euh, je pense que day xaw a per daf lay xaw a perdre sa temps tuuti comme yaa ngi woon ci bu njëkk di programmer euh, multiplication bi nii mën nga programmer waale lépp nga xam ne total bi lay dikk ci suuf total bi fu mu la neex rek lay dikk ci suuf soo ko programme léegi xaaral léegi waat bii nii comme te comme yooyu jiitu rek nga xam ne da ngay jël bële plus ko ci bii plus ko ci bii plus ko ci bii plus ko ci bii nga dugal ko ci égal bi nga dugal ko ci euh, dugal ko ci fii dugal ko ci cellule bi nga bëgg mu ñëw fi comme par exemple cellule bi nii dama koy coché ma def ma def kii ma def euh, égal su ma defee égal defee égal ma jël boobu non non bi ci suuf boobu lay def plus bi ci suuf plus bi ci tegewaat plus bi ci tegewaat plus bi ci tegewaat plus bi ci tegewaat dama neexee ma plusaat ci beneen bi ba mu sës ci léegi ce qui fait yii ma coché yépp bu ma ci remplir léegi lépp bu bu bu ma ci remplir automatiquement résultat bi day dikk fii nii day dikk fii quatre cent douze mille yi nekk nii quatre cent douze mille la fi mu nekk lépp lu ma dikkaat fii nii te lépp lu ma programmé waat ci suuf day automatiquement fii nii te it euh, lépp lu ma corrigé su ma ci defee ay correction nga xam ni euh, batterie bële cinq cinq cinq carton laa defoon ma def léegi quatre carton su ma cliqué waatee da koy corrigé waat automatiquement immédiatement la koy corriger nga xam ne si affaire bu am solo kon tey foofu la ñuy jéem a yem ak yéen incha allah ba baneen vidéo xam naa ni ñu ngi jégalu ci guddaayu vidéo bi waaye eh, Excel moo ko laaj explication yi bëgg mu leer rek dina jaajëfal bu baax a baax encore une fois yow mi abonné gut mën nga abonné ci chaîne bi ba bépp vidéo bu ñu defati eh, nga jot ko incha allah di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci abonement yeeg encouragement yeeg euh, ngeen di demee aywa asalaamaaleykum ba baneen ba baneen vidéo incha allah mooy cinquième vidéo bi wala euh, sixième vidéo bi incha allah